xamante ne moom la ñuy euh, waxtaanee euh, tey euh, Sénat Abdoulaye Sylla Ndari Touré nommés respectivement président et vice-président par décret ginnaaw bi nga xamante ne ajuma jot nañu benn communiqué buy wax ni dañoo wàccee njiital Sénat mu jur nag beaucoup de polémique ajaratu ban jàngat nga ci am. waa déedéet c'est que man nag man Nabou man sax pour une première fois tey damaa am laaj bu ma la bëgg laaj mooy. <laughs> nabu ci réew mi lan la la la lu xew dafa am non maanaam man dama dama comprendrewul ndax te terrain bi dafa ma jiitu lu bari wala man dama nekk en retard wala dama comprendrewul processus bi ni muy doxee. pourquoi nga wax loolu. yow yaakaar nga ni. Mhm. lii ñuy dund nii actuellement nii ci Sénégal. Mhm. dina tax ñu man a wax ne ñu ngi jëm ci ay élections benn. Mhm. bu ñu ci jëmee itam ñu ngi jëm ci ay élections yu transparente dama lay laaj waa ma ne yow ñun ñu ngi am problème mhm. problème bi mu ngi tudd DGE DGE ak Sénat sonal nañ ñu nag sonal nañ ñu nag ndax bu nag son sonal nañ nu bu yàggee. DGE bi ñun émission bi jooy lañu koy jàppee bu émission bi jeex ñu dem tëdd. bi jël pouvoir bu mu amul. waaw dama lay dama ne ñun danoo am déjà société sénégalaise benn problème boo xamante ne on na pas encore résolu. Mhm. ce problème s'appelle DGE. Mhm. ndax nag lépp ci ndorteel gi la. Mhm. ñu ne balaa ngaa xam euh, yëf yi ni muy ni muy problème bi li ko wundu dëgg-dëgg dangay ngay wàcc ba à la source. à ce qui se passe c'est leader politique boo xamante ne dañ dañ ko retiré ci liste électorale yi. Mhm. ñoo koo am ay avocat ami am ami fiem dem ci yoon ba demee ci yoon ñu àtte ko ak benn juge bu tudd si Faye joxe décision de justice. Mhm. muy premier acte. acte numéro mu war a doon DGE bi war appliquer la décision de justice demander DAF à ce que Ousmane Sonko soit rétabli sur les listes électorales mm-hmm. et à partir de ce moment la direction générale des élections war a yëkkati ay fiche de parrainage jox ko candidat bi tudd Ousmane Sonko ndax yoon loolu la àtte mm-hmm. waaw Nabou ñu nekk ay fan nag di yéeg ak wàcc mel ni ku nekk ci montagne du Sénégal mooy réew moo xamante ne boo amul endurance léegi doo fi dëkk. Mhm. ndax yow DGE ñi ñaa ngay kaas problème am sotteegul ndax di kaas problème mu DGE ak bëgg comprendre ban stratégie moo nekk ci ginnaaw qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude de la DGE. Mhm. les gens se posent beaucoup de questions et même on a de tout le monde des juristes. parce que léegi soxlaatu sax nekk juriste tout étant dit que les articles son la on l'a cité nommément l'article 13 du code électoral il est clair mhm. loolu moo indi la débat bi nga xamante ne moom la Sénat am ñu ne léegi nag comme DGE moom dëgër na kër ci dafa mu taxaw moom du fa wàcc mhm. léegi nañ dem ci kii ko gën a kawe muy Sénat mhm. commission nationale boobu moom euh, jël décision ne DGE li nga war a def mooy yëkkati fiche de parrainage yi jox ko Ousmane Sonko. Mhm. DGE taxaw fu mu taxaw ne ko malgré li Sénat <laughs> de wax lépp man jox joxew ma fiche de parrainage pour telle ou telle autre raison parce que finalement les motifs ne sont même plus importants on juge l'attitude bi nga xamante ne mhm. moom moo nekk ci ginnaaw mhm. waaw ñëpp nag di kontaan naan alhamdulilah au moins bu fekkente ne ni juge Sabassi fay def na la muy def ñi ñaa ngay yuuxu naan bravo DG taxaw dëgër këcc. ñu dem ci Sénat Sénat ci beneen décision ñu ne alhamdulilah waa léegi nag yow ñëpp di xaar à ce que cet article bi nga xam ne moom laa doon wax sànq mooy que Sénat prenne l'entière responsabilité. Mm -hmm. par rapport ak situation bi ni mel pour remettre les pendules à l'heure mm-hmm. et que ñu fexe ba ki nga xamante ne moom mooy Ousmane ñu rétablir ko dans ses droits. Mm-hmm. c'est-à-dire faire de lui. un homme déjà capable et éligible à tel point que dina war a mën a jëli ji ay fiche de parrainage comme ay moroomam. Mhm. dem wàcc ci terrain bi ndax li ko desee ci diir bariwul ñu xëy ñu ne bon finalement remaniement am na changé nañu euh, li nga xamante ne moom ñi nekkoon ci Sénat ba yépp jëlee nañ leen fa fal nañu ay njiit yu bees léegi may laaj. ndax njiit ba fa newoon dafa retraité. waa kañ la retraité bu ñu joxee décision pare. xanaa xamuñu woon ne moom dafa retraité période bi ñu ko fay bàyyi pendant tout ce temps xam nga douze personnes lañu changé. ci biir euh, Sénat. waaw sept yëpp ay retraité lañu. waaw d'accord dama ne sept yi ñu yi ñuy dugal. waaw d'accord naa. Mhm. am problème. Mhm. ma ni bi ñu retraité ci saa si. oui. mënuñu woon changé ña fa nekk wala. Hmm. maanaam bi retraite bi di bëri dugg. Mhm. ñu ne kii retraité na. retraite bu amee kay na bu dañ lay defal pour de départ félicité la. Mhm. takkal la médaille boo ko mérité. ne nag léegi nag passation de service day am. Mhm. nañu ñëw jox ñi bees ñi daal di ñëw toog loolu lan moo tax defuñu ko bu yàgg pourquoi ñu war a toog ba décision bii jóg retraite door a dugg mooy sama problème. Mhm. pourquoi ça n'a pas été fait moment bi nga xamante ne foofu la ñu ko waroon a defee ak foofu la ñu ko waroon a décider gis nga nabu koor. li ñuy gën di poser ay actes yu mel nii wax dëgg yàlla nit ñi di gën a am conviction ni mhm. wax lii boo ko dee xool ba xool doo xam yow lii nan lay nduru yow maanaam mënoo ko wutal tur mënoo ko wutalub sant mënoo ko te xam nga vraiment euh, Nabou on peut pas être à ce niveau de notre démocratie mhm. et parler de choses à la limite aussi terre à parce que soxlawul njàng mu kawe ak njàng mu sori pour mën a comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment man pour man c'est une volonté vraiment manifeste de faire de telle sorte que le gars ne participe pas à ces élections mais quel est le problème quel est le problème de ce pays na bu nit ku retraité dañu koy defal départ mu dem bu yàgg instant bi retraite bi duggee instant boobu la d'ailleurs ñoom ñoo ñuy wax ne nu gouverner c'est prévoir. Mhm. pourquoi attendre à quelques mois trois mois xaw ma des élections pour changer tous ces postes-là léegi nag il y a un défi que la Sénat doit relever. quel que mhm. soit ñu fi mënti nekk mooy ne il y a d'abord un avis qui a été donné par rapport à la situation de Ousmane Sonko c'est un fait. Mm-hmm. la suite mooy avec ces nouvelles nominations la est-ce que ces gens vont se ranger. Mhm. par rapport à décision bi nga xam ne ñoom Doudou Ndir ak yooyu jëloon nañu ko. Mhm. ci li nga xamante ne moom mooy euh, la réhabilitation de Ousmane Sonko sur les fichiers électoraux wala bokk qu'est-ce qui va se passer en réalité moi j'attends de voir la suite des choses tout en sachant que li gën a important facteur bi gën a am solo na ko ñi ñi bàyyi xel bu baax ce n'est pas. des problèmes de poste. C'est encore moins un problème de personne. C'est un problème de réglementation qu'il faut respecter. C'est un problème de cahier de charge qu'il faut respecter. C'est le fait de prendre des responsabilités par rapport à une situation qui est là et qui devrait être réglée selon ce que li nga xamante ne moom mooy loi électorale bi li mu tënk ak ñoom li nga xamante ne moom lañu leen sant et ci yoon woowu la ñu war a dëpp tey jii encore une fois au-delà de dénigrer li nga xamante ne moom mooy administration ni muy doxee avec le comportement de la DGE et qui pose problème au Sénégalais on a besoin que cette euh, que commission-là, cette Sénat avec ces nouvelles personnalités qui font leur entrée grâce à la nomination du chef de l'État, que ces gens-là ñu mën a identifier wu par rapport ak li nga xam ne mooy rôle ak mission yi Sénat am te jaarale ko ci yoon benn ndëngate bañ cee am wala boog benn soupçon de ndëngate par rapport ak lecture bi ñuy am ci décision yi ñuy jël ak doxalin bi ñu tàmbali dañu jëm ci ay élections yoo xamante ne nabu pour le bien de l'image même de de l'État de son administration et de tout ce qui organise que ci élections yi ñu jëm jiixi jaaxa bañ a am ci doxalin luy war a mën a tax ëllëg ñu naan lii kat séntu woon na lu ko wala yaakaaroon nañ ni wala xamoon nañu ne ci yoon bii lañu jëm na bu dama la bëgg xamal benn mbir gis nga bu yàlla tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé yow moom mu lay effacé tracé waat loolu dama bëgg mu leer maanaam dafa am loo xamante ne c'est le domaine de l'humain am loo xamante ne c'est le domaine du divin te Dieu est au contrôle yàlla day toog di seetaan benn mbir nga yaakaar ne sax dafay seetaan déedéet booba àpp ba moo jotagul bu àpp ba jotee quel que soit doole ak kàttan ak force boo mënti am très vite di nga comprendre ne benn doole benn kàttan benn force moo fi am mu yàlla suñu borom mhm. te man dama gëm ni sunu borom bëggul tooñ bëggul injustice sama gëm-gëm la. man dama gëm ni euh, am na loo xamante ne nii maanaam buñ ko dee wax ak di ko débatté sa parfois dama naan est-ce que du ñàkk gëm yàlla na am na foo xamante ne bu nu fa tolloo. la lay def loo la lay dindiloo yow doo ko tey te nit nag dina juum ba juum ci comportement am. te du rendre compte ne moom ci njuumte la ne tant que yàlla wanu ko de visu yi ne ko fi ngay jaar nii du yoon bu baax bi le Sénégal mérite des élections yuy wuyu ci traditionnellement li nu xam li nu tàmm xam ak li nu tàmm dund. Mhm. na bu élection dalu fee amee tey li ko dalee 1960 ba léegi biñ ne ñun am nañu suñu indépendance ba tey. Mhm. na bu ci élection la Sénégal di dox. Mhm. on a appris à parfaire notre système démocratique. li ko dalee de Senghor de Abdou Diouf de Abdoulaye Wade jusqu'au président de la République Macky Sall. ce sont des gens qui se sont battus. pour écrire des règlements pour organiser une société. pour que yëf yi mën a tegu ci yoon. et que tous ces acquis démocratiques yoo xamante ne xeex nanu ko ba am ko waruñoo mën a dóor marto rek immeuble bi affaissé wu après mu jeex parce que le Sénégal en tant que tel ne mérite pas ça. le Sénégal mérite une tradition fidèle par rapport à sa démocratie te lii may gis ñii muy doxalee nii nii. Mhm. ah man de ko mu dal sa xel baax na waaye man sàmb dalul sama xel. dalul sa loolu la loolu la opposition bi tàmbalee euh, wax ndaxte jàpp nañ ni euh, ginnaaw bi nga xamante ne dindi nañu euh, ki nekkoon ca boppi Sénat daal di koy remplacer wala ñu dindi fa équipe dal di fay dugalaat beneen équipe par décret. Euh, présidentielle ñoom dañoo euh, annoncé que euh, dañuy taxawal benn plateforme boo xamante ne dafay servir de prendre en garde les manquements dans le déroulement du processus électoral ki ko leeral wala ki nga xamante ne moo ko annoncé mooy Abdourahmane Diouf bu awale mhm. ajaratu est-ce que c'est pas trop tard non c'est-à-dire que xam nga kaay ma wax la nag gis nga mhm. l'opposition sénégalaise moi je vais juste leur donner un conseil mm -hmm. et je ne suis personne pour vraiment jox leen ay conseils par rapport ak li xew nii mais dama leen bëgg xamal ne leen gis nga am na loo xamante ne maanaam bu nu ko dee bàyyi mu jàll mhm. du seen ndam ñoom du seen ndam pour la tout bonne et simple raison que fu mu nekk nii étape bi ñu toll nii nabu tout le mhm. monde est responsable c'est-à-dire même garder le silence c'est une façon d'être responsable mm-hmm. de la situation bi nga xamante ne moom moo xew nii on ne peut pas être politique sans pour autant avoir le courage de dénoncer loo xamante ne yow jàpp nga ne lii du dëgg du yoon te dénonciation boobu muy won woon commencer depuis le refus bi ñuy def pour jox Ousmane Sonko li nga xam ne moom mooy ay fiche de parrainage am foofu la waroon a tàmbale l'opposition doit comprendre que face à une situation pareille c'est ñoom ñu nekk benn avoir le même discours je le dis souvent même pas pour la personne mais pour une question d'intérêt public mhm. ñu taxaw xam ne il y une chose boo xamante ne ni il ne faut pas laisser passer mais Nabou ñoom même bu fekkente ne lu occupé occupé ci collecte parrainage mhm. waa léegi ñoom bu ñu defee parrainage ba pare te mu leer na la ni lii étape une rek par mhm. rapport ak une longue procédure boo xamante ne moom moo ci topp ci élection présidentielle ngay gis les actes qui sont posés tous les jours que jëfe te yow yewoowoo Ghana yewoowoo Kenya yow yaa ngi Sénégal gii fii nga dëkk fii nga juddoo fii nga màggee mhm. te loo gàtt gàtt gàtt gàtt xam-xam war a mën a xam ne Sénégal am ma loo xamante ne nii en terme de procédure noonu la nu mës di doxalee ngay gis nuy doxalee neneen nga ne patous yow responsable nga mhm. ci situation bi am il faut que les gens se disent la vérité les yeux dans les yeux nus qu'on ait le courage de dire que aujourd'hui cette opposition là ne peut pas s'appeler opposition tant que mënuñu opposé wu ci lenn loo xamante ne jàpp nañu ne lii bokkul ci liy doxal démocratie réew mi mm-hmm. wax ji yépp mënoon naa bañ a gudd ne heure bi mënoon nanoo dépasser stade bi on ne serait pas à l'heure où on parlerait aujourd'hui de la DGE de la Sénat ou entre autres on parlerait plutôt de la collecte des parrainages et à l'étape du bilan. Mm-hmm. à mi-parcours ci fan la ñu toll fu mu nekk nii ci liggéey bi ak. qui sont dëgg-dëgg les prétendants à la présidentielle yi nga xam ne mën na nañu jàpp ne ñoom ñoo nekk ci kanam. même ci wàllu parrainage sax am na ñoo amuñu amuñu euh, euh, lii di euh, parrainage parce que am na ñu fi toogoon di sax kaas li nga xamante ne moom la ñuy doxalee ci wàllum parrainage bi ba récemment ñu dégg kii di Mamadou Ibrahima Kane ajaratu. Mm. ne moom finalement dafay retirer sa candidature parce que dafa seetlu ni y une pléthore de candidats à la candidature te loolu nee moom moom dafa jàpp ni dafa ëpp. waaw moom euh, il a il a ses raisons euh, et on l'accepte. Mm -hmm. euh, man pour man une candidature plurielle ne me dérange pas pour autant euh, parce que je pense que il y a am na règlement yoo xamante ne moom la ñu fi teg te bu boobaa bu segg jotee moom la loi naturelle électorale fera les choses en termes de de de décision ak leneen lu ci topp. Mm-hmm. mais c'est-à-dire que man aujourd'hui ce que je demande à ces candidats là. tous ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle ceux qui ne le sont pas ceux qui sont tout simplement des leaders d'opinion wala qui s'activent autour de la politique que ça soit la société civile que ça soit tous ceux qui sont même ñi nga xamante ne seen xam-xam na sax ba ci wàllu juridiction leneen lu ci topp aujourd'hui la vérité des faits mooy on devrait pouvoir dire réellement et apprécier à la juste valeur ce qui est en train de se passer mm-hmm. et ñu comprendre ne pour cette élection là le choix revient au peuple et le peuple juge le peuple bi ni muy tànnee mooy ci attitude u candidat yi par rapport ak situation actuelle bi nga xamante ne noonu la dëkk bi doxee nga far ak ñàkk far du loolu mooy débat bi nga soutenir ak ñàkk soutenir waxtaan bi nekkul ci poñ boobu waxtaan bi fi mu nekkee mooy mhm. Nabucor man yow man ak yow lu ñu nekk nekk ay concurrent mm-hmm. ak lu ñu ñàkk bokk bokk gis-gis ci doxalinu réew lu ñu ñàkk ñàkk bokk ay idée de projet ci li nga xamante ne moom moo war a doxal sunu réew wala rapport ak li nga xamante ne moom mooy politique bi ñu bëgg doxalee lenn rek mooy mën a permettre dëgg-dëgg tànneef man a taxaw mooy ne xam nga bu ñu organiser élection yoo xamante ne tolloo la dafay am liñ naan équité ak égalité des chances. le peuple sera beaucoup plus à l'aise pour faire un choix. Mm-hmm. mais par rapport ak li nga xamante ne moom mooy xew nii dama ne waaw bu dee da ngeen yaakaar ne kon élection yi ça va bien se passer au vu et au su de tout le monde par rapport à ce qui est en train de se faire et les gens acquiescent tranquillement à kon nag soit parce que dans tous les cas nous on n'est pas politique te ñun yootuwuñu li nga xamante ne moom mooy fauteuil président de la opinion wu nit e de manière claire et franche. par rapport ak lii. candidat bu ci bëgg nekk mhm. candidat à l'élection présidentielle et situation bi nekk di am nii tu ne te mhm. prononces pas là-dessus mhm. man damay jàpp di nekk di xew te boo ci di candidat euh, candidat bi di Ousmane euh, Sonko loolu daf leen di xal yoon wi ba ku nekk daal di euh, mën a mën a wéyale waaye finalement dafa mel ni ñu tey Ousmane Sonko Sonko dafa daf leen désavantage en quelque sorte. waaye dama ne c'est xam nga lan la xam nga coow li lan la nabu koor. Mhm. nabu koor Ousmane Sonko mu neex la naqari la yow boo dee politique te yow bàyyi woo ko xel ci ni ngay liggéey mooy yow da nga bëgg a nax sa bopp. Mhm. damaa weesu sax ay parti pouvoir képp koo xamante ne nii yow da nga féete ak maanaam ci wàllum politique. bu nekk kujje politique ak fu mu mënti doon camp bu mu mënti nekk kii mooy koo xamante ne yow mënoo koo génnee fu mu nekk nii. Mm-hmm. ci jeu bi système bi mënoo ko cee génnee c'est pas possible. Okay. on ne peut pas l'enlever du système il fait partie du système. qu'on lui donne ses fiches de parrainage ou pas qu'il participe ou pas ko génne ci jeu bi mu ngi ci biir jeu bi jeu politique bi ci boppam mu ngi ci biir bu ko téyewul ak i loxoom. plus ñuy def lii mais plus muy avantager Ousmane Sonko c'est ça qui est drôle c'est-à-dire que plus ngay ñuy am démarche yu ni mel plus nit ñi di gën a conforté wu ci position bi ñu am plus ngay gën a dooleel koo xamante ne ni à la limite yow joxoo ko sax fiche mm-hmm. donc la question ce n'est pas qui participe à l'élection kii kii kii qui va pouvoir tenir wala ki nga xam ne moom mooy tirer profit de cette occasion là déedéet la question est dañu jëm ci ay élections yoo xamante ne on a besoin d'une assise solide et assise solide boobu mais Nabou DGE moo ko war a assurer mm-hmm. Sénat moo ko war a assurer tous ces superviseurs là qu'on se dise de la CEDEAO bu ñu yegsee ci ay élections mais en fait il faut que ñun ci li nga xamante ne moo wund ak sunu moo laalee ak sunu taarixu réew na muy lu jëm ci sunu wàllum démocratie maanaam mu bañ a écorné wu mhm. te image bi nag mu ngi commencé na bu mu ngi ñaaw de ñaaw na bu dul ñaaw na ba noppi kay <laughs> mu ngi ñaaw nag wax dëgg yàlla ci li xew ni mhm. man moom personnellement je ne comprends pas cette nouvelle stratégie et j'aimerais et je ne veux pas porter un jugement mhm. bien avant que ñi nga xam ne ñi war a toog toogaguñu dalaguñu décision maa ngi toog di xaar ba xam maintenant ces retraités qui sont soi-disant partis avant qu'ils ne partent je pense qu'une décision a été donnée te cette décision là bi ñu koy joxe ba fekk na ñoom ñu ngi foon ba tey kon cette décision là elle compte xam nga dama la wax. cette décision la kenn mënu koo boxam comme benn papier rek daal di sànni la la Sénat a donné son avis par rapport à cette situation bi nga xamante ne moo dox ci diggante DGE ak le candidat Ousmane Sonko la décision a été prise alors que ñoom yëkkatee guñ leen ci fauteuil bi donc décision bo day compter on on part si partant sur ce fait là ce qu'on attend. Mm-hmm. c'est que quels que soient les nouveaux membres yi nga xam ne ñoom ñoo constitué la Sénat. et j'ose espérer que am nañu confiance ci ñoom daanu dëggal li nga xam ne seen prédécesseur def na ko mais au-delà de tout cela ils vont se substituer et aller jusqu'au bout de leur logique par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy teg Ousmane Sonko nii ci élection yi ñu jëm d'accord jërëjëf alors ñu daal di ñëw euh, ci beneen point bi nga xam ne moom la ñuy euh, waxtaanee euh, di wàllum éducation CUSAMS ak SAEMS mi nga xam ne dañ doon amal conférence de presse àjjuma bi ñu génn daal di nañuy annoncer une journée d'école morte ëllëg mardi 7 novembre 2023 Cheikh Oumar Anne nag daanaka il est actuellement sans concession parce que wax na ni